Sénéinfo International. Sénéinfo International Sénéinfo.net bonjour dalee ak jàmm su lu gën a fes ci xibaar yi tey euh, euh, jeudi 21 euh, décembre 2023. L'Observateur moom dafa ñëw def témoignage am ne na les traumatismes de femmes victimes d'agression sexuelle donc si xëtam mu njëkk si yéenekaay bi moom dafa ñëw ci victimes yi nga xamante ne ñu ngi am ay séquelles si violence sexuelle yi nga xamante ne ñoom ñoo koy dund. mu ne d'autres éprouve le sentiment de dégoût pour les hommes donc ñi nga xamante ne dañoo leen di sàkku ñu nekk ay jigéen ñu nekk des victimes de violence sexuelle def ñu ay témoignages dans euh, l'observateur ñoom nee nañ na léegi sax euh, vraiment dañoo dese ay séquelles ci seen bopp en même temps aussi euh, dañoo am genre bañ dañoo dem ba dañoo bañ góor daal loolu la journal bi xëy def tey dans sa une. ñu ñëw rek si jour du des rek journal bi mu ne meeting euh, de Paris investiture du PS et de la l'AFP le week-end dernier investiture de l'APR Amadou Ba à bruit de démarrage donc euh, loolu la journal bi encore ñëw fësal tey euh, dans sa une ñu des rek si journal bi mu ne diffamation Sonko Mame Mbaye Niang le procès décisif la Cour suprême fixe l'audience au 4 janvier donc le 4 janvier bii di ñëw. Euh, si la ñuy euh, si maam li la maam Baye Dia euh, di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy Sonko si procès boobu nga xamante ne ñoom moo leen opposé mu nekk le procès Prodac donc loolu la journal bi xëy tey fësal à sa une Walf Quotidien moom dafa ñëw si dépôt de candidature du leader du PASTEF mu ne Sonko se livre au suffrage loolu la def à sa une mu ñu des rek si journal bi mu ne anémie chez les enfants et les femmes allaitantes le Sénégal dans la zone rouge donc. Euh, anémie yi nga xamante ne mooy anémie dafa laal jigéen yi ak xale yu ndaw yi donc ñu ne Sénégal dafa nekk dans la zone rouge ndax feebar bi mu ngi nekk feebar boo xamante ne vraiment mu ngi lor euh, askan wi la rawatina euh, ndaw yi ak jigéen yi. le quotidien moom dafa ñëw rek nee na si Sénégal rek nee na pro programme mille vingt 2027. mu ne de l'eau dans le gaz loolu la xëy def sa à une mu ne retard dans la production du jugement de Yak du de Yaakaar hmm, la société va continuer à louer des centrales thermiques pas de baisse de tarif prévue à moyen terme donc loolu la journal bi xëy euh, def euh, dans sa une ñu des si journal bi mu ne euh, Sonko devant la cour suprême le 4 janvier comme ni leen ko waxee procès Mame Mbaye Niang le janvier lañ ko prévoir. Euh, voilà donc ñu ñu ñu ñu des rek ah si euh, si si journal bi mu wax ne contentieux Sonal jette concessionnaire huit milliards à nettoyer donc concessionnaire ñu ngi nekk euh, en ba tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi observer le la journal bi tey xëy xëy actualité bi nga xamante ne mooy proxy Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko mu ne euh, contre Mame Mbaye Niang le 4 janvier à la Cour suprême le procès le plus dangereux de Sonko loolu la journal bi def titré euh, mu ne en cas de confirmation de la décision de la cour euh, d'appel il est immédi il est immédiatement ki nga xam moom mooy Ousmane Sonko mu ne l'affaire Khalifa Sall le rabat d'arrêt n'est plus suspensif donc loolu la journal bi xam ne tey dans sa une mu ñëw rek conseil des ministres bi nga xam ne def nañ ko démb mu ne Macky matérialise ses promesses au une direction nationale des daara instituée le directeur nommé donc euh, voilà loolu la journal bi xay na donc daara yi léegi am nañ direction générale nationale ah donc euh, am nañ aussi benn directeur boo xamante ne nommé nañ nommé nañ ko moom la nommé nañ ko moom la daara bi moom la journal bi xëy fësal tey euh, dans sa une. la tribune moom dafa ñëw si campagne campagne arachidière mu ne ça démarre mal mu ne euh, cent milliards de francs euh, CFA de perte pour les producteurs loolu la journal bi xëy fësal mu ne les paysans vendent leurs graines euh, sur le marché parallèle une situation qui risque de couler la Sonacos donc Aar Sunu Moomel plaide la dissolution du CNIA donc loolu la journal bi ñëw tiis tey ñu des rek ci journal bi mu ne la Cour suprême fixe la date du troisième round waaw comme procès procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko moom aussi dafa dans sa mu ne loi de règlement de l'année 2021 Moustapha Ba ministre du budget moom ñu détaille euh, les comptes donc loolu journal bi euh, ñëw xam ne donc euh, ça une tey jii donc ñu desaatal ci journal bi mu ne 38 journalistes tués dans l'exercice de leur fonction en 2023 en zone de conflit donc li nga xamante ne moom mooy 38 journalistes jàpp nañu ñoom nañu roy ci année 2023 bi dans les conflits dans le monde donc le journal bi euh, tribune ñëw def ko tey euh, fësal ko tey dans sa une euh, Sud moom dafa ñëw rek ah si Sonko rek ah affaire Ousmane Sonko mu ne bataille pour sa réintégration sur les listes électorales procès Prodac le 4 janvier mu ne Sonko sur tous les fronts donc loolu la journal bi titré mu des si journal bi mu ñëw rek si beneen prouesse boo xamante ne médecine euh, sénégalaise def na ko muy euh, euh, réussite ah réussite parce que dafa ne traitement endovasculaire dans l'anévrisme cérébral donc après transplantation rénale bi nga xamante ne moom la ñu médecin yi réussir doon temps yële passé mooy mois de novembre yi passé donc réussir waat opération muy opération bi ñu leen wax lii muy opération dans traitement en traitement dans endovasculaire l'anévrisme cérébral donc réussir na ko encore fële ca Touba. li la ñu leen di loon tey euh, li gën a fes si xibaar yi tey euh, euh, jeudi 21 décembre 2023 ñu leen di jaajëf bu baax a baax si tawli bi te di leen ñaanal yendal jàmm. Sene Info International.